jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz ñu amati mbégte kontaan saa su nekk ñu ngi toog ki nga xamante mooy sëñ Basirou Fall mi nga xamante ne tey mooy borom lépp ay baax ah sëñ Basirou Fall nag nee naa leen daanaan la ci koo xamante jafe-jafe ci réew mi ak bitim réew incha allah rabbi ba lañ jokkoo ak moom sëñ Basirou Fall nee naa leen seen aajo dina faju muy nit koo xamante ne tey ku maanaam ku yàlla déggal li nga xamante mooy kurusam ci côté ñaan parce nee naa la nag ñaan at yi bari defu ko mais nit mën a nekk gone nga am ci loo xamante ne lu wér te wóor loo xamante ne ci ñaan ci côté astral lépp loo si ñaan ya nit rek yàlla suñu borom da baax di leen siyaar baax di leen jox seen wàccuwaay di leen xamal ni tànk yi ngeen dox ñëw bu fii nii seet sama pour pour pour ñu génnee xam-xam yàlla ko suñu borom defu ak yiw di ñaan ñi xam ñu tëdd ci loolu hôpitaux yi suñu borom fëgg seen bopp bañ mën a dellu seen njaboot di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkk ci ñoom di ñaan si réew mi suñu borom def ci jàmm waaw bisimilah. jërëjëf sëñ Bassirou Fall kàddu googu am na solo lool lool lool sax mais sëñ Bassirou Fall fi may duggee ak yow ci jamono ji ñu toll ci réew mi bëri na sëriñ ciy génn ci internet bi que ne ay maanaam ay cheikh lasran lañu ñu ay dañoo mën a ñaan léegi lii et ba ñu bari jamono ji sax dañu ñaan ñooñu dañ leen di nax ci li nga xamante mooy ci côté ñaan tey parce que ñëpp koo xamante jëflante na yow ci àdduna ci côté ñaan rek gis na li nga xamante mooy ci résultat bi loolu may yàlla suñu borom mais lan nga wax ci sëriñ sooyu ndax sëñ bi tontu tontu boobu noonu nga ma euh, question question boobu noonu nga ma posé loolu question boo wax dëgg yàlla am na loo xam si dañ ko war a bàyyi muy jàpp jàmm yàlla di leen nax ci wàllum ñaan ndax loolu dafa bari ñu ma koy jàmbat lool mi bëti mi bitim réew mi Sénégal am na ci ñoo xam si ne sax wallaay xas yi ba ñuy yónnee seen xaalis ñu boleke leen am na si ñoo xam si ne maam dañ da da da dañ yónnee seen xaalis lañ leen wax duñ ko gis wala ilaa tamit duñ jot ci yenn ñaan ay ñaan duñ ci jot loolu ñu bëri ñu ma ko jàmbat loolu mu mett ma lool kon sëriñ si li ma leen xamal mooy ñu leeral te ja buñ buñ te dem jàngi xam-xam ci boppam ndax xam-xam lu ñuy jàng la lu ñuy jàng la ci boppam ndax lépp loo sonn rek lépp loo sonn daj ci lu ne suñ borom dana ci fekk ci kàttanu yàlla kon nag li may li may ñaan nag sama diggante sëriñ si nga xam si ma am ñooy ñaan ci yàlla da bokk da bokk man liggéey bi li may ñaan ci suñu borom ñu leeral te dëggal te xam ne ñoom seen bàmmeel ñoom dong ñoo fay tëdd bépp bépp ak doomu aadama bépp ak doomu adama boo lekk ci boppam laa ne ëllëg suñu borom dana la ko laaj sa bàmmeel lu jëf ju baax donc ma la fay fekk kon nag nan dëggal teg ci mbir da mbir mi ci lu leer ndax kenn ku ne yor nga njaboot yori soxna kon nag yàpp naa ne kon bëggoo benn àq doomu aadama dal sa njaboot wala wala mu lay topp sa biir bàmmeel kon nañ dëggal te rek te rek affaire bi ci leeral waaye képp ko moom si ne nax nañ la sëriñ si ab sëriñ nax na la nga jëflante moom mu nax la ci kàttanu yàlla wallaay xas yi mu wooyee jëmi ajjooy danaa faj ci kàttanu yàlla insha allah rabbi ndax suñu borom gone laa dëgg la waaye suñu borom may na ma xam-xam may na ma loo xam si nii képp sa jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Basirou Fall loolu am na solo lool ci li nga wax léegi léegi ci côté li nga xam ne mu ngi am si jamono ji ci réew mi ñu bari di ko naqaru lool lool lool loolu sax mais est-ce que nekkul tamit des fois yenn sëriñ si li ñuy jël si ñaan moo bari ba duñu mu maanaam duñu maanaam duñu mesurer seen app fi ñu fi ñu war a yëpp maam gis na sëriñ si mënul leen lay dara ndax da ci ndax lépp liggéey boo gis am na ñuy yàq am na ñuy defar liggéey boo gis waaye nañ bàyyi tappale ci boppam tappale yi nañ ko bàyyi te day dëggal nit ki sa nit ki nit ki nga xam si ne dalaa daa daj lu ne yónnee la xaalisam yónnee la xaalisam boppam xamoo xamoo da ko lepp xamoo nu mu def ba am ko ba dugal la ko kon kooku ngeen waxante kàddu kàddu kàddu kàddu yoo xam kàddu yu dëgg la yaa ngi dégg kon nag loolu loolu ci boppam war nga koo mën a matale waaye jàpp naa ni nit ngeen waxante moo waxi kàddu ba noppi la nga la wax defoo ci dara ba noppi nga boole ko wala jotu ay ñaana wala nga ko ñaana gisu ko loolu jàpp naa ay tappale la ci aw fen nga ko teg kon sëriñ si kon nañu leer da dëggal te xam ne mbir mi ci boppam xam da xam ne moom da xam ne moom mbir mi ci boppam Euh, doon na loo xam si ni lu ñuy jàngale lu ñu gëstu lay doon nekkul loo xam si ni ay tappale ko teg ndax ñaan fa mu nekkoon ba tey ma nga fa ñi dëggal ba tey ñoo ngi dëggal ñi ragal yàlla ba tey ña ngi ragal yàlla ndax wax yàlla ñi ko fi bàyyi suñu maam ñi ko fi bàyyi ñu ragal yàlla lañ woon musuñoo ñu bind leen la ñuy defal gisuñu ko kon nañ teg mbir mi fu leer mbir mi lu ñuy lu ñuy jàng lañ doon ndax bëri na sëriñ soo xam si nii nit ñaan loo ñu ñëw ci man ci boppam di may ñaanlawaat ci lool noonu man leen noonu loolu du ma ko liggéey du ma leen ko liggéeyal dem na ngeen jàngi xam-xam kon ni ma ko jàngi ba mën ko waaye wallaay xasim loolu damaa métti trop sëriñ si nag maa leen xamal maa leen lancé benn mbir loolu nag ñu dem jàngi xam-xam da suñu Bassirou Fall loolu am na solo loolu waa kaddu gi am na solo mais dañuy ñëw ci côté li nga xamante ne mooy ci côté xam-xamu seet ak listixaar dégg nañ suñu borom may na la ci lu wér li nga xamante ni du wóor mais comme tey bu malade feebaree bu demee xam lan ban feer moo ko dal lan mooy buntu seet wala lan mooy buntu listixaar ak yan façon ponk seet moo am xam nga seet dafa bëri façon da bokkuñ am na ñuy seetee ci ndox am ñuy seete ci suuf muy xel mu ràmm am ñi seete ci wàllum course am ñuy seete ci alxuraan am ñuy seete ci euh, ci ci ci wàllum ay ay janaag yu mel noonu waaye man moom li may seete man alxuraan la man sama lépp alxuraan la sama lépp alxuraan la te alxuraan saa bu ma xëyee dama ci jàng ñaar fukki sib te dama koy jàngale damay di ko jàngal ba noppi yor daara te man sama lépp alxuraan alxuraan ci laay seetee te nit ku ñëw bëgg ma seetal ko ci kàttanu yàlla su ma ko seetalee ba noppi day mel ni ku ku ko xam moo wër ci ginnaaw wax wax wax ma ay jafe-jafeem te fekk lépp ci xam-xam la dama ko luñ loo xam-xam boo xam ne dama koo jàngal waaye nit bis bu ñëwee moom seetlu tax koo ci kàttanu yàlla wallaahi xasi bu ma ko bu ma ko seetlu bu ma ko seetalee billaahi wallaahi wa day jombi ci boppam ci kàttanu yàlla bu fekk wàllum listixaar la loolu lu ñu fanaan lay doon lu ñu fanaanoo ba tey mook seet bokkuñ listixaar lu ñu fanaanoo lay bokkom la la lay doon lay doon da lay jox turam ak santam ak turu waajuru jigéen ak santam ak lim am ci at ci kàttanu yàlla bu ñu ko fanaanoo bu ñu xëyee suba tey bu ñu gisee bu gisee li xam si moom lañu fanaanoo da jàpp xam daa ñëw daa ñëw daa am wax ñu ay jafe-jafeem te waaye wallahi xasim képp ku xam si da nga xam say mbir lan la bëgg xam say jafe-jafe ci kàttanu yàlla bu ñu jokkoo ko allah da nga xam da nga xam say say jafe-jafe lu mu doon bu fekkee daa bëgg xam sa wàllum yaram lan lépp daan na ko leer ci kàttan yàlla dara duñ ko bàyyi te sëriñ si ndax seet lu ñu maîtriser ak lu ñuy jàng doon xam-xam lépp lu ñuy jàng doon baax baax na jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf suñu am na solo loolu ci côté li nga xam ne ci côté seet mais ñu nga xamante ni tey ñu bari dañ ciy bëgg ñu leen ciy ñaanal ah tey ñu baree bare bare bari Sénégal da ngay gis ñu bari ci ay moodu moodu dañu am problème mu këyit nekk bitim réew di am problème mu këyit pour ci Sénégal ci seen i mbokk wala koo xam ne sax day nekk fii Sénégal déppo déposé ay kayitam pour mu am kayit pour dem voyage yi day am jafe-jafe te dégg nañ ñee ci ñu ngi wax ci nit ñi ne ku ci jëflante ak yow am nga ci li nga xamante mooy lu wér te wóor incha allah bi ko ci jëflanteel yàlla dina def ne balaa weer waa del si dina am li nga xamante ni li mu soxla ci li nga xamante mooy ci kayit. waaw sëñ bi maanaam Modou Modou bi nga xam si daa nekk bitim réew wala Sénégal bi nga xam si daa nekk Sénégal bëgg dem bitim réew mu déposé ay kayit ba sonn mënu koo am ba mu déposé ñu naan ko tey suba tey suba tey demal nangam demal nangam yaa ngi dégg wala laa tamit mu sonn ci lool lool lool lool lool ci kàttanu yàlla bu ñu jokkoon bu ñu jokkoo incha allah bu ñu jëflanteel balaa mat bis bi dellu si danaa jot ci kayitam ci kàttanu yàlla te bu ñu ko jox ñi ko war a jox bu ñu ko ko tay mm. ñi ko war a jox bu ñu ko jox laa ci boppam duñ ko tay am na si ñoo xam si ni màggal gi jàll laa màggal gii jàll ci boppam afa màggalu màggalu daaw lañ mën a ñaanlu ci kayit te màggal gii màggal gii ñu romb ni màggal si nañ te màggal gii mii màggal si nañ te am na si ñoo xam te sant te sant nañ yàlla bu baax a baax kon nag wàllum kayit ci boppam doon na loo xam si ni jëfiwut te sëriñ si dañoo tàmm maanaam du jafe dañuy yombul mbir ba noppi ba noppi nit bu jëflante ak ñoom ñu ñu ko ñu xaw koo jafe lool. te fekkee ni xam-xam doon na loo xam si ne maam lu lu nëbb lu nëbb la waaye soriwut waaye ci kàttu yàlla képp koo xam si ne maam wàllum kayit dalaa të moo xam da ngay di waaye déposé moo xam nga déposé ñu lay ñu lay bàggantaloo ba sonn ba mu ba mu bu ñu jokkoo ci kàttanu yàlla incha allah rabbil alamin da nga da nga jot say kayit incha allah bu fekkee da bëgg da bëgg a dem da dem bu fekkee da bëgg jóge Europe bëgg a ñibbisi da nga ñibbisi ci kàttanu yàlla kayit moom amu ci morom moom mhm. dégg loolu am na solo lool lool lool Sëñ Bassirou ci côté li waxtaan ci côté li nga xamante mooy ci côté kaaraange parce réew mi bëri na tey jamono joo xam ne tey nit da ngay yor xaalis bu bari mais du am kaaraange xaalis ba yàqu doo xam nu muy def wala nit ne la lu ma yor day dem lan moo indi loolu noonu rab moo koy def nit ki wala ñàkk kaaraange moo mooy def loolu si doomu adama bi am na dañu am tur am lépp mais dañuy am problème mu cat topp daal dañuy gaaw a bàyyi daal. waaw xam nga ndaw lu ne dafa war dafa wut kaaraange ci boppam ndax nit ñi dañu gis nit di saako bayra dafa fekkee ne amut kaaraange moo tax mu moo tax ndax kaaraange ndax bayra doon na loo xam si ne boo xasee ba saako da amoo kaaraange nit ku ne lay ñëwal maanaam euh, rab da lay ñëwal seytaan da lay ñëwal jinne da lay ñëwal ku ne lay ñëwal ku ne nit ku ne moo ci bopp moo lay ñëwal te boole ci ban boo mut kaaraange ba jafe-jafe yu bari pour nga am ko dala yomb mën nga amul tourna nit ñi dañuy tudd mën nga am sax nit ñoo xam am njariñ bayra bayra gi sax bayra sax ma xam li ci gën mooy bayra bu am njariñ boo xam ne nit ñi dañ lay jox nit ñi nit ñi la amal njariñ ci bopp ñoo lay ñëwal kaaraange kaaraange ma dama la xam ne sama kaaraange balu dañ si la képp ku xam si ne dal na sa kaw day gaañu képp su ma la ko liggéeyee képp ku dal sa kaw gaañu képp ku xam si ne maam dal na sa kaw day gaañu yaa ngi dégg kaaraange dem doon loo xam si ne maam ñëpp ci ko war a ñëpp ci boppam mbindeef yëpp ñoo ko ñoo ko war a marché daal di wut waaye doonu loo xam si ne maanaam ah, da dangay da da ngay nit nit nit day dugg ci benn métier sax maanaam réussir lool maam nit ñi doomu aadama ñëw yàqal ko te fekkee ne maam maam ñàkk kaaraange bu ci boppam moo ko waral moo ko waral ci boppam ndax nit day yor place mu ré mu commencé réussir doomu aadama ñëw soxla soxoree ko ko yàqal ko ko nit day jóge ci day jóge senegal tukki Europe bàyyi fi ay noonam ay noonam di koy liggéey pour ba du am dara moo tax nit lépp lu mu mënti dugg da ca daaw wut kaaraange nit gis na bi tabax kër bi tabax kër war na ko seetlu buy dugg bu ma war na koo seetlu ba xam ba xam war na ci def ay ñaan sax boo ko jënd sax war nga ko seetlu ba xam ba def ci ba def ci ay ñaan bala nga ci tamit war nga ci def ay ñaan kon lépp loo dugg ci war nga ci def ñaan ba noppi sàkku ci kaaraange waaye kaaraange doon loo dafa baax ci doomu aadama moo tax nit dafa war a belande boppam képp koo xam si maam man sama kaaraange balu tañ si la su ma la ko liggéeyee képp ku dal sa kaw day gaañu boo dalee moo tax nit nit dana am lu ne ñàkkaaraange moo ko waral ay farab moo tax bayra tamit bala nga ko jëfandikoo bayra bayra moo tax lii ñu naan bayra bala nga ko jëfandikoo faa nga am kaaraange doo koo jëfandikoo bisimilah waaw. jërëjëf suñu Bassirou Fall kaddu gi am na solo loolu li nga ci leeral am na solo lool lool lool sax mais ñu ñëw ci côté li nga xamante tamit jamono ji nekk na feebar boo xamante ne tey ah day xaw a rustu pour wax ci doomu aadama da ngay nit ki ne la maanaam yëgatuma sama bopp. moo xam na ñu bari nag jamono ji ñu toll duñ ko judduwaale mais dalee ni dab mooy télé néew kattan lan mooy waral loolu nit ki di gaaw a télé wala di gaaw a néew kattan te ban taxawaay nga ciy def dégg na am nga ci ñaan ko solo xam boo ko defee nit ki incha allah bi dina delluwaat ci li nga xamante mooy ci ngóoraam dina jotaat li nga xamante mooy li bëggoon bu ko judduwaale wut. waaw question boobu nga ma posé neex na ma loolu pour ma répondre ko ci yàlla laa koy de ci yàlla suñu borom mi suñu borom mu màgg mi laa koy waat billaahi wallaahi wa taalaahi sama bàmmeel man dong maa fa tëdd képp koo xam si ne kattan dal na la kattan ci boppam dal na la ci boppam laax ne maanaam mënoo maam boo maam booy seeg sa soxna maam plaisir bu bari doo ko am wala ilaa nga am sa soxna ngeen am jafe-jafe ci boppam maa xam si wala wala néew kattan dalaa sonal lool lool lool lool barke xaadim Mustafaa laax ne gis na bitel bi laax ne ni nga gisee ni bu ko kenn xeeb ndox mu ñenaan la ndox mu ñenaan la te boole ci am ñaa am na beneen bitel tamit am na beneen bitel bokkut ak bii waaye bii moo fi des ndox mi moo fi des lii lu ñu naan la fi nga ko naan ci sansa foofu nga yëgee sa bopp ci sansa barki suñ Tuubaa fi nga ko naan ci sansa foofu bopp ci sansa te boole ci am na ñoo xam si ne wàllum kattan li leen koy def mooy wàllum fardab da leen koy def am na ñoo xam si wàllum mballu wàllum mballu ci bopp moo leen koy def di fawee seen awra di fawee seen bopp ci bopp moo leen koy def te baaxut am na ñoo xam si nii dañuy jëfandikoo ay doom te loolu bu demee ba yàgg day yàq sa sili dootu la jëriñ dafa baax waaye wallaay xasim képp ko xam si ne maanaam wàllum kattan dalaa dal ci boppam maanaam nga nga jooytu ko fu ne fu ne nga ne fa ñu nax la wallaay xasim bitil boo ko jëlee ndox mu ñu naan la wallaay xasim laa ne boo ko naanee fi nga yëgee sa bopp ci sens ci kàttanu yàlla. daan ñaar dañaar am na da da da des na benn bitil bidel bi bidel bi dong moo moo moo moo fi des waaye ci kàttan yàlla képp ko xam si loolu daal la wallaay xasi boo ñëwee si ajo danaa ko saafara ci kàttanu yàlla wàllum kàttan ci boppam ndax bëri na ñu ma koy joytu ndax Sénégal yi wax dëgg yàlla ñëpp bëri na ñu koy joytu ci boppam te doon loo xam ne dafay lool si dañ naan mën nañ ko faj di di maam wax loo xam si maam dañ ci ñeme yàlla waaye képp ko xam si nax na ci kàttanu yàlla nañ ko ndax dama lay xamal dama lay xamal benn mbir ci boppam man suñu boroom ci boppam ndaw laa dëgg la waaye suñu borom tel na maa may loo xam si nii musuma jëflanteeg nit hmm. mu ne ma li ma defal gisuma ko te jombal naa sama bopp nit woo ma defal ma nangam ma koy wax lu dul dëgg ndax ëllëg yomal xiyaam ma suñu borom danaa ko lay ak suñu borom kon nag lépp lépp looy wax lépp looy wax ak lépp loo xam si nee nga mën nga ko seede seede ci yàlla seede seede ci sa diggante sa borom ba noppi doo sa diggante ci doomu aadama yi ndax alxuraan mun naa baax te duñ gis njariñ li tax duñ gis njariñ xam la alxuraan boo koy jëfandikoo da ngaa war a woddoo dara baa nga sol baa nga jël tuba ju bees tàq muy jiital bu bees tàq nga sol ko soo koo lii bëri na ñoo xam si ni gàllankoor yi gàllankoor yi gàllankoor leen koy teg sangu alxuraan bu noppi def yaramu neen te sëriñ si loolu mosuñoo tokki émission leer di leeral yu mel noonu moo tax mën la xam-xam ci boppam lu ñu jàngale ak lu ñu lu ñuy gëstu lay doon xam-xam ci boppam mhm. Assane Fall baa ma laaj ci li nga ne nag li nga xamante ne mooy kayit gi ci lu muy fooy bii nii mu nekk fooy bu am solo mais ñu gis ci ay xaatim ci lan lay dox fooy bii nii. maam képp koo xam si ne maa am nga am jafe-jafe nga am gàllankoor loolu lijjanti mu tawu sotti nga nekk Sénégal di lijjanti ba sonn loolu lijjanti mu taw sotti mënoo amum liggéey mënoo amum métier ci boppam ak ki nga xam si daa nekk Europe liggéeyam duxut wala liggéeyam daan dox ba noppi liggéey dox wala mu bëgg liggéeyam gën a dox ci kàttanu yàlla ci ay fànn laa liggéey ki nga xam si nii dafa day liggéenti lu liggéenti mu taw a sotti su ma koy liggéey ci jaaro la jaaro lay àndal ki nga xam si ni maanaam ci lu ma maam daan amoon na waaye amutut bëgg a amaat kooku moom li ma koy liggéey dama koy liggéey bu noppi ba noppi ba noppi di koy sikkaral aw tur tur yàlla koy sikkaral yaa ngi dégg ba noppi am na ci am na ci am ki xam si ne tamit dafa am am am am am am na ba noppi waaye dafa bëgg am amam gën a yokk kooku wàllum xalwatu dugal su ma koy liggéeyal ci boppam gisal lii wallaay xasim du ma ko liggéeyal nit mukk mukk ci boppam laax ne te te aajum fajuwut du ma ko liggéeyal mukk no nit laax boppam te aajum fajuwut ki xam si daa tëju ki xam si daa bëgg am ki xam si ni jafe-jafe jafe-jafe lay am ki xam si daa bëgg ko samp ki xam daa bëgg kaaraan ki xam si daa bëgg wàllum bayra ki xam si daa bëgg ñëpp di koy tudd ki xam si ne maam maam jëmbi doomu aadama jëpp aaju ju mu bëgg jëpp aaju ju mu bëgg ci boppam nañ jox ko ci kàttanu yàlla bépp aaju boo xam si maam da koy sàkku bëgg moo xam wàllum yaram moo xam lu mu mënti doon moo xam wàllum famille moo xam lu mu mënti doon moo xam moo xam sax ki nga xam si day xëccoo suuf sax day xëccoo suuf bëgg a jot si suuf sa ñu koy néewal doole ci kàttan yàlla ci kàttan yàlla na ma woo moo tax man samay bunt samay bunt ya samay bunt tëjul ma ko kenn man ni ma mel ni laa mel ku ma woo dana ma jot nekku ma fi di xat-xatlu yaa ngi dégg waaye nag yan saa yi damay jàpp kurus su ma jàpp kurus ci ay jaam ñi laay nekk yan saa mën a kii liggéey ci liggéey nit ñi laay nekk waaye nag képp ko xam si woo nga ma jutoo ma su ma gisee sa appel appel dinaa la woo yaa ngi dégg waaye tamit tamit képp koo xam si tey maam bëgg aju aju ju am nga bëgg mu faju ci kàttan yàlla nañ jokkoo incha allah bi wallaay xasim laax ne aju danaa ko faj bu soobee suñu borom. subhaanahu wa taala waaw. incha allah jërëjëf suñu asa xam naa li ñuy tàggatoo mooy jamono ji li nga xamante ne xew na fële ci assemblée bi waa pencum ndawum réew mi jamono ji ñu gis ñi nga xamante ne mooy ñëw ŋànk réew mi coow li bari seen biir loolu lan ngeen ci wax yéen ñi nga xamante ne maanaam coow loo gis dafa war a ànd ak yar gi ndax ab ndax yar ak teggin ci boppam dafa baax ci doomu aadama ndax ndaw ñi bu gis ñu ni jàngal yar leen moo tax ndax li may wax saa yu su ne sama yeneen émission yoo xam si defe naa ko defe naa defe naa ko feneen ndaw lu ne daa war a amub yar amuy teggin xam ni mu waxee ak nit ñi bari na fi ñuy ñuy ñuy xas suñ ñuy ñuy ñuy ñuy critique suñ kilifa yooyu noonu maam ñi nekk ci biir kilifa yi ba noppi ñàkk yar ci bopp moo ko waral. yaa ngi dégg te booy itam ma xam ma leen ñi nga xam si ñoo ñoom Barthélémy Dias ak ñooñu noonu moom ñooñu ci boppam ñoo la àndal ndax li tax ma ànd ak ñoom ci boppam ci ñoom la ñuy def réew mi lañ réew la ñuy xeexal Sénégal ci bopp bëgg moo di dëgg te man ku nekk ki dëgg lay àndal ku nekk ànd ak moom du ma ànd ak nit ci ay tappale ci dëgg lay ànd ak moom sama taalibe bi xam daal sukku jéblu ci man sax dama koy wax dëgg bu nu ma ne ànd ak ci dëgg gi day ànd ak man ci loolu moom ci loolu ma xool nu mu defee ma kenn ci leen ndax man suñu borom teral na ma teral na ma ci boppam kenn soxlu ma lem pour may wax pour may wax lu neex nit ñi man man lu neex man lu may lépp lu may dama koy seet sama digg na sama borom kon nag ay ñoom Ousmane Sonko ñoom Barthélémy Dias ak réew mi jaxasoo na dëgg na man Ousmane Sonko man Sénégal yi ñoom lañ àndal te man moom la àndal man képp ko xam si ni moom la àndal moom looy àndal te Ousmane Sonko tamit ma koy xamal leen tamit maanaam na gën a xoolaat entourage bu baax gën a bu baax a ci boppam dana defaraat baax na Ousmane Sonko jëflante naa ay sëriñ yoo xam si ni ñii xam xam ñi Ousmane Sonko xam na la ñi Ousmane Sonko xamul leen ñoo xam si dañ ko dañ koy dañ koy téel course ci wàllum kaaraange moo tax Ousmane Sonko ci boppam tamit képp koo xam ngi jëm ci moom dara barke Sëriñ Tuubaa doo ko fekke dama am ci lu ma ci leer nañ képp koo xam si tamam yaa ngi koy fexeel doo ko fekkee képp koo xam si maam mënoo ci moom wax ju baax ci boppam maanul ci maanul ci mbiram samp suñu borom la te am na ñoo xam si ne samp suñu borom ñoo ko ci jàppale ci boppam waaye samp suñu borom kii mun kii mënu ci dara te te ñoom te boole ci ñoom nag ñoom moom ñu moom ñu àndal parti yeeg ak ñi mu war nañu mën a xam da xam ne moom samp suñu borom la ndax si ndaw ñeeg ñëpp la bëgg ndaw ñi tañ laa bëgg mag ñi bëgg la ñii di lay nuyee addiyee loolu di ay jaaxaan musuma gis ku fi ku fi bëgg président ñi lay joxe addiyee musuma koo gis kon nag waroon ñoo xam dañoo war a xam ne kii lu suñ borom def ci moom la gis naa ko fan yi mu dem xel koom di teral donga yi di leen jox ay wàllum euh, xéewal di leen yëkkati addiyam di leen ko jox te dongo yi waxuma la waxuma da nga ne daara joo xam si maam ay dongo yu ndaw dañ faa nekk di jàng alxuraan ñi amuñ ñi bu la ñaanlee suñ bi suñ borom day nangu ñaan googu ci bopp dañu ci lépp lépp lépp lépp te Ousmane a fonk bu baax a baax a baax na ko gën a fonk bu baax wallaay xasi na ko gën a fonk moo tax alxuraan lépp lépp mooy ci ngi dégg du ma génn ci alxuraan di demaat ci yeneen te man moom laa xam moom laa tërbiwa te dañaan la olof di wax naan la la la la saawaay ñam xuma xuma lu mu ko waxee noonu waa kay loo xuma lu ko olof di waxee noonu man dama ko ñam xam la muy saf te duma ko bàyyi te lépp lu may ñaan ci laa ko ci laa koy ñaan moo tax li may li may tàggatoo mooy maam sëriñ si nañ gën a gëstuwaat te jaay nga xam da bàyyi seen tappal yi da bàyyi caaxaan yi da bàyyi di nax nit lekk alal di jàmbur yi kii liggéey alalam xamul fu mu ko dugal mën nga ko nax fi waaye doo ko nax fale nañ bàyyi caaxaan li may tàggatoo mooy di ñaan suñu borom def ci def ci réew mi jàmm di ñaan ñi xam si ne maam tamit ñoo ñoo amee jafe-jafe suñu borom faj faj seen i jafe-jafe ñi xam si amaguñ ko yàlla buñ ko am di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal suñu borom def ci def ci réew mi jàmm di ñaanal màggal gi xam moom lañu génn ñëpp ami xéewal ba bu ñu màggal si kenn du ñaan paasu màggal kenn du ñaan paasu màggal da ngay ñëw màggal si indaale say xéewal berne berne say gan dellu delluwaat fi nga dëkk yaa ngi dégg kon nag li ma bëggal sama bopp laa bëggal ñëpp yaa ngi dégg kon nag ñoo maa ngi tàggatoo foofu daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Hmm.